Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ku dugg mu partage rek vite fait rek Cheikh Thiam yee eh, bàyyil ma dóor ko fi rek ndax sama batterie bi bëriwut ndax yenn saa yi da nga leen ñuy déglu rek sa yaram tàngane xaaral ma ñëw wax ak waa ji mais Tunkara boobu noonu nekk 2S <laughs> ndax Cheikh Thiam ci biir waxam nee na wax na la ko barki démb dama bëgg comprendre seen seen émission bi ñaata fan la teg wax naa la ko bërki démb gis nga ni muy rëccee gis ngeen ni nga ñu tegee seen i seen i pion xam nga ni Cheikh Thiam kuy wut développement ci réew mi soxlawoo ko euh, yow bu fekkoon ne yow tunkara juste nga parce que Cheikh Thiam moom li ma koy li ma koy wax moom pare naa ci wax naa ko ko ba noppi mais bu fekkoon ne justu nga da ko wax nekk que yow sa jaar-jaar noo def ba génn réew mi sa jaar-jaar noo def ba dugg ci réew mi lu tax booy dugg Sénégal doo jaar doo dugg euh, Sénégal direct da ngay jaar ci frontières yi waaw fen yooyu noonu ndax américain ràññee nañ ko waaw voilà loolu nga koy laaj dégg nga mais bu nit ki am na ñoo xam ne boo leen di laaj da nga leen ñuy laaj ci li ñu xam xam nga li ci développement réew mi ngay laaj seex ci am xam nga li ma la wax Cheikh boobu noonu di toog di wax lu ko neex euh, euh, Ousmane Sonko bu fekkoon ne yow Tounkara bu 2S yow juste nga yow nit ku juste nga ah euh, Cheikh Thiam parce que amul lu muy développé ci réew mi ban métier lan mooy métier wala métier bi muy def muy tailleur nga laaj ka ci Amérique nan lay nan la nekkee ak métier Cheikh Thiam nga laaj ko ne ko wa yow senegal lutax bo fi ñew do wacc ci aéroport bi directement lan motax ngay wër ci dekk Afrique yi dégg nga kooku mooy ponkalum maamu fenkat bi nga xamanteni musuma gis yalla bind fenkat bu mel non ba nopi dafa jaar fo xamni fu graw la ta mom moko ko moy neena yaayam papa mënalul won bopam deglul de te Ousmane Sonko da mënal bopam ba mënal domam ba am domam bo xamni yobuna ko mu tukki di fubal liggéey ci fonction publique bi quinze ans mosu cee luubal dërëm kii la Cheikh Thiam di waxal de nee na yaayam moom moo ko wax bi ñu nekkee xale maanaam amuñu woon lu ñu dundee ba muy xas waa waa euh, maanaam lii yëpp dafa link nag. dama ni la 2S euh, euh, kii Tunkara bu fekkoon na sénégalais yi juste ngeen Cheikh Thiam da nga koy laaj ci loolu kon xamuloo Cheikh Thiam yow yow xamuloo Cheikh Thiam kooku ni muy nooyee noonu lay fenee. moo ñu ñëw bëgg ñoo gëmloo ku ku baax ak ku baaxul ci réew mi mu ni yaay ji boolam la daan gàddu mooy mair yi daan sàcc ndawalu ngénte yi loolu la yaayam doon leen dundalee dégg nga nga war a mën a xam ni yow am nga jaar-jaar boo xam ne bu metti la dégg nga nga ñëw fenal Serigne Touba ba am ci këyit mais ñemewoo jaar Sénégal wàcc ci aéroport bi léegi nag mën nga maa fen loo quoi euh, euh, euh, da ngay photo Eh, eh, ay proof, yo xamne day wane ci aéroport Sénégal bi ngay wacce wone loolu parce que récemment gis na la nga jaar ci deuk Afrique yi eh, waxal rek waxal yow yaay ponkalam fenkat bi nga xamanteni ci 100 ans yi gisuma ku ci yalla bind mu dem soppi fenkat parce que ñun ñepp bu ñuy juddu julit lañuy juddo mo xam kum meuna don tuba be kum meuna don bu ñuy juddu dañuy juddu nek julit dégg nga euh, xeex bi sax yaakaaroon naa passé woon naa waaye dama bëgg yow ak tunkara moomu noonu ngeen honnête dégg nga tey su ma ñëwoon toog ci télé bi fii di di ci émission tunkara daf may laaj ne maanaam war na maa laaj sama gëstu yow nan nga nekkee lan mooy sa liggéey yow dañ lay gis tout le nga nekk sa taxi di dawal xam nga mën ma ca dammat wax ma leneen leneen ak leneen dégg nga ak yeneen ak yeneen waaw yow lu tax nga bëgg réew mi di xeexal réew mi ak yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na mën na laa laaj ci loolu waaye di toog di fen teg seeni complot ci biir wax ma yaa ngi naan ko wax naa la bërki démb xaw ma lan ak lan ak lan léegi yéen émission bu ngeen ko amee wala ay frère ngeen yéen a bokk kër ah Cheikh Thiam kuy mën fen ci àdduna dégg nga moom moo la koy jàngal dégg nga kon maanaam ñun mënoo ñëw lëbëji suñu suñu yoon bii yow ñi ngay xas depuis 60 ans fii la far ba taxaw ñëw fii yow complexe bi fii Amérique nga taxaw di ko di ko tagg ba yow da ngaa gëm dara dara gëmuloo ko te ñoom ñu ñëw eh, géwalu président boo xam ni milliardaire la nga ànd ak moom kii ñëw liggéeyal kii bi xoolal projet bii bul yaakaar nañ ko bàyyi noonu de dem ne xoolal mën ngeen am seenu eh, antenne sénégalais yi dem fen mën ngeen loolu waaye lu ngeen tabax dinañ ko dindi sénégalais yi ñoo reglewul rek ñoo réglewul mais mais yàlla bëri na sutura mais kuy mën fen yow murit bu ñu amoon fulla danañu gëstu nan nga def ba am kayitu Amérique mën a mën a mën di di ñëw Sénégal murit yi ci boppam ñoo ñoo yenn saa yi ñoo xamul fu ñuy xeexee loolu kese la yoonu Serigne Touba bi lu nekk wax nga ko wax nga ko ci ay fen ci ay preuve yoo yoo xam ne nee na da nga ko danga ko yor te yow ñoo foofu nga la sa bàyyi dawoon laxatu ji amul lu mu dundee amul lu mu la dundalee sa yaay di gàddu di wër ngénte yi di togg di sàcc ndawalu jàmbur yi di leen ñëw di leen ko dundalee moo tax xamuloo sa bopp dafa yomb dafa yàgg yomb ci yow xam nga ñi luubal réew mi yow xam nga lu boo paree nag xam naa dinga ma jéem a lijjanti xam na woo xam na euh, lijjanti samay mbokk yi naan ma waaw wax leen rek sa waay lan laa ko def xoolal fii la ñuy teg table bi bàyyi sa tappale yi man ñi ngay dem naan wax leen sa waay lan laa ko def tous laa la wax réew mi amuluma ci mbokk amuma ci rakk amuma ci mag dégg nga du ma la ko rusee de da ngay bàyyi sa fen yi ñu nekk nit waaw bu ñu gisee ñu nuyoon te nekk ay nit dégg nga loolu laa bëgg nga wax ko dama bëgg nga nekk nit bàyyi sa fen yi bu fekkee ne bës moo la dugal fii nga wax ko am nga lu doy mbubb ak tubéy leeralal sénégalais yi noo fenalee Serigne Touba ba américains yi jox la kayit leeralal loolu sénégalais yi tunkara de tunkara boobu noonu nee na borom xam-xam la moom ci boppam bu fekkoon na ku honnête la ku juste la dégg nga mën na laa laaj naam yow sa gis-gis ci jomaay ak sonko waaye mën na laa laaj naam sa gis gi yow yow yaay kan yow yow yaay kan yow sénégalais bi nga xamante ni yaay toog di ñu wax ni Sonko fenkat la wala kii fenkat la yow yaay kan yow déjà yow yaay kan yow déjà yow mais Tunkara boobu tapalekat la fii la nekk bi mu duggee di conseiller Macky Sall ci la ëpp lu mu rey ci sénégalais dégg nga boo ko gisee sax danga koy yëg ci baari lang langam ci buy wax ci Sonko ak Diomaye wala président da koy dig ci ci ci yaram yi ci làkku yaram yi danga ko ci sentir xam ni imbécile bi Tunkara na ma yàlla baal def na fi ay njombe yoo xam ni di conseiller Macky sàll muy rey ay sénégalais nga jàpp ni moo nekk ci dëgg ngeen jàpp ni yéen a nekkoon ci dëgg bu leen ñu fontoo projet bi ma ne la amul benn xiij mbal la boo xam ni da koy da koy na mu tuddati dégg leeralal sénégalais yi leeralal sénégalais yi loolu ponkal mu toll la yor nekk fii te yoruloo jabar xam nga wax dafa baaxul góor du wax mais yéen ñuy poussé dégg nga leeralal sénégalais yi yow lan moo tax yow ngay dem di dugg ci appartement tubaab yi 30 minutes di génnaat doo leeral sénégalais yi loolu moo tax nga mën a fen sa làmmiñ ñu ratax góor day takk jabar ñu xamee ko ay jabar benn jabar bu fekkee ne mënul téye genn bi mu dem takkaat ñaar bu mënul téyewaat genn gi mu dem takkaat ñett mais loolu la ñu xam ci góor mais kenn du la gisee jigéen kenn du la gisee jigéen ah nañu waxante dëgg rek leeralal loolu sénégalais yi lan moo tax gars yi di la wàcc ci appartement tubaab bi 30 minutes di la xaaraat di la yóbbuwaat surtout New Jersey googu noonu doo leeral loolu sénégalais ah nga nekk fii di feral gor boo xam ne yàlla moo ko setal ndax nga sa bopp encore une fois li nga war a leeral tunkara boobu bu fekkoon ne bu 2S bu fekkoon ne nit ku gë ku ku jub la nit ku juste la question yi dana leer. mais réew mi ci boppam tappalekat yaa ngi noonu ñu ngi noonu moom nag xam naa biñ ne ko yow léegi comme ci presse bi nga nekk yow Tunkara te ñu laa jàppale ci presse mu ni moom dafa muus mu ni gars yi xam naa mën nañ maa jàpp ëllëg comme nii ñu sekk yi nii xaalis yi ñu xam ni budget yi leen doon jox mu ni def leen ma ministre conseiller bandi xaram bi nga doon mais seen genre gi mënuñu leen jàpp fii de fii ci kaw àdduna mais yàlla moo leen ñu jàpp ëllëg yow mal xiyaam ñoon dem rek da mën nga toog naan alxuraan bi laa la wax nii yéen la yàlla di xambee euh, euh, euh, safara mooy munaafiquun yi mooy ñi yàlla di xambee safara ngeen xam dëgg gi dëgg jog gi ci seen tànk toog di tappale waaw liggéey journaliste dem wuti yow sa liggéey kay professeur la mënoo dem dem defi professeur te wàcc ndey tali bi télé kii bi tele bi nga nekk fii naan da ngay sensibiliser sénégalais yi tey yaa gën a dëng ñëpp yow Tunkara tey dëng yi gën a garaaw ngay def yoo xam ne nit mënu koo détecté mais yàlla moo leen ciy mbugal mbugal yëpp mooy na naafeq gi ngeen nekkee bu fekkoon ne yow nitu dëgg nga Macky Sall bi mu fi nekkee di doo ànd ak moom di nekk ministre conseiller ba Macky Sall jeexal bandi xaraam yi ngeen doon ngeen yaakaar ni mën ngeen yàq as gor ñëw leen ñu dem ñëw leen ñu dem ngeen xool fii ki ngeen ñu waxal sax du leen tontu diffamation nag dara neju Macky Sall da doon tëj ay nit ci diffamation bu mu génn foofu te tëjoo leen bu leen tiital ci kayitu Amérique bu mu leen tiital Yaya jàmm rey na fii ñaari eh, eh, ay nit yoo xam ne Angleterre la ñu yor nationalité fii dëgg la kenn condamné wul rey te mujjwul fen lu leer laa la wax buñ ko waree gars yi li ñuy nappee nit ñi naan man ay américain laa tous laa wax ñoom ñëpp laa la wax kuñ ci ku ci def dara nañ la ci kontaan loolu la gars yi comprendre dañu naan kat kii ku dëngal la comme dafa dëngal dañ ko war a jubal ñun ñu mel noonu la ñu war a soxla yar ko loolu laa bëgg nga xam ko suñu gouvernement bi bàyyi leen complexe ci gars yi nga xamante ni ku mu mën a doon moo xam bu France nga yor moo xam bu Amérique nga yor nga ñëw foofu jaay yëfi reewande dañ laa war a def comme ni ñu def Ahmed Suzanne Camara dégg nga boo toog foofu naan suñu premier ministre dafay fen te yow yaa ko dàq fen ñu bàyyi la ba noppi di napp gars yi naan kayitu Amérique nga yor ah di napp gars yi naan kayitu Amérique la yor ak yu kenn xamul loolu mooy war a jeex fii ci réew mi dégg nga ngeen nekk nit te bàyyi ay fen te teg ko ci yoon loolu mooy dëgg waaw yow ki ngay naan dafay fen nan nga ci mën a teg ay preuve Macky Sall bi ñu koy wax naan dafay fenn ay preuve lañ fi teg yu leer nañ balaa muy yor réew mi set milliards yi foo ko jëlee mu ni Ablaye Wade moo ma ko may te Ablaye Wade deewagul Ablaye Wade ni mayuma ko ko daf koo sàcc ah lan la ci Ablaye Wade mënoon boobu sénégalais joxuñu ko te baat ci xaalis boobu ba nopp mënatu ji dara mënatu ci dara nii la affaire bi demee woon moo taxoon ñu xam ne kii sàcc la kii mënu leen fu mu leen génnelee ay fu fu ngeen ko mën a génnelee ay preuve mu euh, loo xam ne ay tappale la ñun ñoo leen gën a bëgg dëgg fuuf fu ñu gisee ay juumte wala ay tappale dañuy taxaw nangu ànd ak yow ci bu ñu xamee ni kii tappalekat la dañ ciy ànd ak yow ñun doxuñu ci ay tappale ak ay dañuy wax pour nit ñi xam ñu wala pour ay buzz wala pour yeneen ak yeneen mais nag réew maa ngi noonu nii la demee di nga wax nag ba sénégalais yi bëgg la man loolu rek ma metti ci lii sénégalais yi loolu dong la ñu bëgg dégg nga fenkat la ñu bëgg ak manipulateur da nga def noonu noonu ngay def noonu moom la ñu bëgg waaye sénégalais yi dafa jot ñu xam yow tamit yow yaay kan loolu mooy dëgg war nañoo xam yaay kan Cheikh Thiam danga bàyyi sa fen mbaa xaram bi nga doon